nga mën a wax ne moom bu bokkul ci ñi nga xam ne ñoo sës ci Karim ñaar rek wala kenn bokk ku la mën a wax ne nangam bi carte yi la ñuy jaay lii moo nekk ñu nekk ci secteur bi pour nga xam au moins la population te bi ñuy defar carte yi xam nga pour lan la woon pour avoir une vision généreuse et progressive de notre population. da nga ne amul benn militant. bu nekkul mu sës ci Karim Wade bu la mën a wax tant de carte lañu ñu jaay. waaw euh, dafa mel ni da ngay sous-entendre que à part ñi jege Karim Wade kenn xamul li xew ci renouvellement yi. bon xam nga renouvellement yi li ñu ci xam bari na parce que déjà yàqu na wante xam nañ ko xam nga bi ñuy jaay carte si nous en politique dañuy compter ay nit mënuloo am ay citoyens yu lay voteel te amuloo ay militants yu dem seeti leen wax ak ñoom est-ce que d'accord nga ci la ma la wax. Mm-hmm. amuñu ko li ma ci mën a jàpp chiffre bi ma ci mën a jàpp yaakaar ne am nañ ko mooy dama dégg Racine kan le responsable des finances bi mu demee génnee CDC mu ne caution bi ñu verse militants yi ñoo ko joxe par la vente des carte parce que man lu ma nit wax dama koy te man nangu ko nag mais def naa ci benn déduction bu ndaw. dama ciy génne neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent parce que loolu mooy un million yi ab Ablaye di joxe moo dem Ablaye di kartam jarul jarul carte li muy jar jarul cent franc d'accord nga ci la ma doon de très bien waaw ah, mais loolu mooy li ñuy jaay carte yi nga xam ne jaay jox nañ ko ci xaalis mais carte yooyu est-ce que ñëpp dugg nañu ci secteur xaw ma ko ma wax leen ci jamono yi na leen. faites attention au syndrome de 2012 dama ko bind. dama leen bind wax leen ko ne leen faites entre 2012 jaay nañu 2 million de cartes 2010 11 12 ñu dem élection am 970 000 waaye est-ce que loolu mën na ma dal dal sama morom te duñ ci réfléchir réflexion yi nga génn rek ci colonel boobu ak li ma la wax ci Mimi Touré donc réflexion wu laa def ñu dem ba nga xam ne ñu ngi monter. mu am ay problème yu baree bari bari amul fenn fu amul problème problème yu baree bari bari bari des contestations multiples 2013 2014 2015 2019 ñu ñëw élection élection amul on n'est pas candidat. non élection am na vous n'êtes pas. Ah, ah, candidat waaw ñun élection am pour bu ñëw tu as totalement raison. Mm-hmm. wax nga dëgg wax ju juumte la élection am ñun kan ñu candidat est-ce que ñun amuñu problème. kan moo ñu ëpp problème te ñun ñu mobiliser une population. mais boo leen nekkul candidat aussi est-ce que c'est de la faute du parti. non attends attends euh, da ngay bàyyi mu pare ci laa jëm ku nekk dañ ci wax sa fot alors un parti c'est une organisation 2019 donc amuñu candidat suñu candidat nekkul mënees na ko nangu pour benn raison durée condamnation bi jeexul woon d'ailleurs après les avocats wax nañ ko. ne tey Karim Wade nekk na dafa war a dellu ci fichier électoral bi parce que délai bi mu amoon ci condamnation yu mat na mooy liñ ko condamné délai bi mais terewul ñun déposé woon nañu candidature waaw dañ ko invalidé. waaw dañ ko invalidé pour parce que on a modifié la constitution sur la notion de candidat électeur parce que ba boobu jamono. on pouvait être président de la République du Sénégal sans être dans le fichier électoral parce que kenn daal woo laaj carte électeur donc loolu moo ñu ci génne et sur ça maa ngi fàttaliku très tôt Babacar bi ba def na sax euh, wax na ci lu bëree bari bëri et c'est une c'était une attente chez lui parce que dafa dem na ba si àgg dafa ne pouvoir bi duñ fa àgg mais après pouvoir bi mën nañ fa àgg te àgg nañ fa léegi ñu dellu gannaaw 2019 ñu passé ko ñu préparé 2024 lépp mat na sunu candidat bi Karim Wade nous avons fait tout ce qui était possible pour que sénégalais yi bugg ko Maïmouna da ngeen bokkoon ci ñi nga baal ma xam wala boog ñu bari dañu bokkoon ci ñi ne woon ne condamnation demande social la. ah non man bokkuma ci ñooñu non d' accord naa moo tax ma dindi ko. gis nga bi ma waxee nga xool ma rek laa ko dindi dama ne. ba en tout cas réew mi waxoon nañ ko ñi nga dégg ñuy wax société civile yi ak ñi àndoon nañ ñëw loolu la ñu waxoon. mais kan moo def le combat les militants du PDS on a organisé plusieurs manifestations am na manifestation boo xam ne à Mbacké fa la fa baaba fa booy euh, Baara Gaye génnee dem kaso te sama faute la man moom xam ne ne sama faute la. parce que dañ ko fàtte woon ci orateur yi man maa ko mu ñëw ma ko da ngay wax parce que nous une jeunesse ici te c' était le responsable des jeunes bi mu waxee la wax le bi ñu jël si ko xam nga ma te tooñ naa ko loolu yëpp sama charge la man.